daf leen di jaxase xam nga moom <laughs> nii la ñuy def papa su ma bëggee ñu yóbbu leen yéen si table ji damay jaxase Yacine wala ma jaxase la ak ñoom wala ma jaxase ko Simon waaye yéen dañ leen duus waaw dañ leen duus alors gouvernement ba de bii nag nee nañ gouvernement de mission la wala de démission laaj bi am na solo de waaw ah. laaj bi du ay caaxaan de tribune yéen kay laaj bu am solo la def mm. nee na gouvernement de mission la ni ko Amadou boo waxee mission et de combat wala gouvernement de démission ndax nag est-ce que mën nañu am ndam fi ñu toll nii gouvernement bii ci njëkk yu cher yi nga xam ne ñu ngi koy dund est-ce que mën nañ ci dara. Hmm. yokkute gi ñu nemmeeku nii. bañ ci góorgóorlu jigéen ñi doon jigéen ñi koo si jox junni dépense sama saar gi dañ lay jox junni foog ne. jox nañu àndi ndax li bi biir te jox naa la dépense bu ma sëkk. mais dootul doy. boo demee marché da ngay jënd ñuluk pour mën a toog ah kay ñuluk koy jaay léegi. dootul doy de. da ngay bu ceeb bu xonk wala bu weex. aywaay <laughs> dañuy tooñ am ne jënd am na. si yow da nga mës a gis. non man xam nga liggéey ma. ñeex ñeex man joxe xaalis laa man. ñeex ñeex jënd ñeex. Ah, pour comme booy togg ay cere ak yooyu. dañuy ñu jënd jaay la soos. <laughs> nee nañu est que gouvernement ba deux bii mën na fee jëlee loolu ak njëkk yu cher yi hmm. facture courant bi nga xam ne umbi nduwul porte na combat bi mm-hmm. xale yi nga xam ne bu xëy bi moo tax nee na ñu jël nañu gaal yi dem di faat est-ce que man na ci dara ndax lii rek mënul mën a tax ñu ne gouvernement de démission la gouvernement boo xam ne lajj na ba noppi du samay kàddu tribune yéen kaay mooy wax de que peut-on concrètement attendre de ce gouvernement ba deux si ce non euh, si euh, ce ne sont des promesses ay diggé rek. dinaa def dinaa dinaa dinaa dinaa. Hmm. feex juróomi weer yi des ni ñu yegg ci cëppaandaw ga ndax mën nañ fi réaliser dara ndax mën nañ fi tabax banc public eh. ah est mën nañ ko fi a tabax mën nañ ko inaugurer mais est-ce que mën nañ fi tabax bay moom dinañ ko inaugurer moom si si kii bi bay ah, boo nee tabax banc public ça veut dire que dem leen ngeen toog <laughs> dinañ féexu <laughs> waaw ah. du ma liggéey kay la wax yow Amadou Ba mii mu jàkkaarloo nii ba Hmm. bappul la la xam ban bala mais Amadou Ba. bappul la jéeri la. bappul la jéeri la waaw. est ce que yow bappul la mii <laughs> sa gouvernement bii nga tabax si diiru juróomi weer yii mën nga fi def résultat bu nga xam ne ni Sénégalais yi dañ naan laan gongo si diiru juróomi weer campagne baa ngi fi de battre campagne c'est possible. si diiru juróomi weer yi nga war a mën a battre campagne. dañoo ñëw rek focus ci jafe-jafe sénégalais yi mën nañ ko faj. focus 2024 bi nag. ah waaw après loolu moo leen di fal justement. focus 2024 bi leen di fal wala focus euh, jafe-jafe askan wi. focus yi. Hmm. bi ñoom. focus jafe-jafe askan wi sénégalais yi. si njëkk yu cher yi ndax si juróomi weer yi mën nañ koo saafara. mën nañ ko ndax facture courant yi cher yi ndax mën nañ koo saafara. mën nañ ko. ah mën nañ ko. Ah, waaw abri provisoire yi ñu ne mekk ci l'école yi ndax mën nañ sàkket yeex kiirti ndi ngi ndax mën koo dindi. dañ koy projeté rek. école yi amul gaanuwaay wala loolu rek. ndax mën nañ fee def ay gaanuwaay ci saa si mën na ne wala mooy yu ñuy luyee di ko teg ci xew yi. te mën na ne loolu te man na wax nga dëgg loolu te mën nañ ci jël benn état mën nañ ko ci école yooyu. je impossible. na ne fii laay li. quand on s'en donne les moyens. l'impossible pas Sénégal. Sénégal lu mu bëgg def def. man de lenn de mën naa ko séntu. c'est possible. Hmm. njëgu courant bi ñu wàññi. ah baax na daal mën na ne. mën na wàññi. mën na ne si diggante bi. yaakaar naa ne bu subvention bi delluwaat. coow lii jóg nii. Oumy Ndour porté combat bi. yenn ko di dem nit ñi di ko ci gunge. mu teg ko ci penc bi. ñëpp di ko taaj. man dama ko bëgg non Oumy Ndour dama ko bëgg. man suñu dajee nii dama koy xool moom xam xamante ne mais dama koy xool rek. dama ko hmm. waaw dama koy xool dam ko bëgg. xaritu xaritu maam góor ngoom. non xoolal lu muy def daf ko mën waaw xaritu maam góor ngoom. lu muy def daf ko mën. <laughs> ak moo ko sonal def ko mën. ummi li muy def daf ko mën. Mhm. non daf ko dem ak pas-pas. non daf koy. waaw séentu naa nag mu am ci ndam wax. Ah. journaliste activiste. j'espère qu'elle aura gain de cause. waaw genre maam Diarra da Silva yi Sud FM yooyu man dama leen bëgg. waaw man gëj naa ko dégg na ñu du ma wax ba léegi de. mën nañu leen rusloo de. nee na seen intérêt rek. fu mu nekk sa train de vie daal moo la intéressé yow état yow yow Amadou Ba sa gouvernement du samay kàddu mu ngoog maa ngi ko doon wax sànq député Adja Fatou Sow bu parti démocratique sénégalais bokkoon na ca délégation ba nga xam ne ñoo demoon seeti ji Bougane Gueye Dany naa si ñëwaat waaye parti démocratique sénégalais. <laughs> nee nañ Karim Meïssa Wade dikkaatam fii ci réew mi risque nga ca de. Ah. risque bu njëkk bi moo di amende 138 milliards bi nga xam ne CREI daf ko prononcé. loolu loolu moom daf koy fay ba léegi wala bokkul ci décision bi ñu jël. ah parce bi daf fii ne. waaw non dossier bi. dañ koy. léppay rek lañu di suut mais pas le contenu. donc bor baa nga fa ah. atte bor fay. Sonko la ñu war a ñu jël. Euh, déedéet Sonko mën nañ ko def fii à la une. léegi ñu def ko fii. ah yéen fu mu nekk daal rédaction bu Tribune daal ngeen di jël. di ngeen di waaw <laughs> jaxase naa kaa waa Tribune. non man vraiment man j'assume mais c'est ça en fait. <laughs> nee nañu Karim Meïssa Wade mi tam actualité la de. Karim ñëwagul. ñëwagul waaye fa lay nekk di ojo di whatsapp. mais mën nañ ne chaque jour ngeen baal ma nag maam jaara nag yaay. waaye mën nag tamit nag. maa ngi tamit nag ah. wax ci lu fi nekk. nee nañ Karim Meïssa mii dafa jàppee boppam ni mooy victime bu njëkk bu nguur Macky Sall ndax loolu te mënul doon lu koy lor laaj la de. ah laaj la laaj la. ak luñ fi tëgg yëpp ci dialogue bi. ah waaw ba tey luñ fi waxtaanee li ci kanam réew li gët ñu ñëw ci explosion ba nga xam ne moom moo am sa navire bu napp euh, de pêche chinois bi nga xam ne moo éclaté. Euh, sa port autonome bu Dakar am na ñaar ñu sa faatu. Euh, chinois lañ. chinois waaw. tribunal bu Ziguinchor juge bi nag ñoo ko doon waxtaanee sànq. nee na eh. Ousmane Sonko fa ngeen ruccee turam. delloowaat leen ko fa. waaw waaw te muy dëgg. dugalaat leen ko ci liste ba. Ah. donc ba fii ñu toll nii Ousmane Sonko. man nañ ko tab mën a nekk candidat. Ah buñ sukkandikoo ci loolu. xamuñu nag ndax recours bi ñu dugal dem cassation ndax dafa am loolu ciy doon wala de parce que euh, loi dafa sew droit moo sew. ci biir yéene kaay am na si ay jigéen yoo xam ne fii laa taxawoon doo leen jàmbataan muy jigéen yi euh, euh, kalabaas bu bokk gis-gis. sa kaw la mhm. li ñu bëggoon moo di ay financement ñu taxaw leen ñu fëgg ci taabu ji noonu la ni ngeen def noonu la. ñoom li ngeen def noonu la jigéen yooyu bi ñu fëggee ci table bi nag. Mm. ñoom waa Calabas bu ah, ah, ah, te ñu nekk ba kaw la mm-hmm. am nañ sa ndam ndekete. yéen kaay bi am nañ sa ndam kay. maam Mbaye doo laaj la muy réer. <laughs> kan <laughs> <laughs> xam naa de. bu puy taxoon fii. Ah. da ngeen di jékki-jékki ma wàcc rek di dóoranteeg moom. kon mi ngi lay mi defante kon. puy may ñu bañ pare après nga continuer xam. 25 francs de mooy kii bi saraxu àjjuma bi. jigéen les femmes de la calebasse bokk gis-gis. bu kaw la. ñoom nag nee nañu. fii lañ taxawoon maa ko taxawoon wax ko fii yéene bi bind ko fëgg si table ji ne leen financement la ñu bëgg si jigéen ñi la ñu bokk dañ leen jox financement mujj nañ ci am ñaw ministère de la femme hmm. jox na leen 10 millions ah waaw waaw ñu liggéey seen présidente jaara moom i dolli ca 2 millions muy 12 waaw waaw kon nag yéen a ci des liggéey leen liggéey dem leen ba mën a demal seen bopp ci wàllum koom hmm, hmm. jigéen moom boo ko dénkee xaalis rek jàppal ne kon mi ngi ci yoon bu baax waaye bu dee sama genre nga ko dénk dañuy takk jabar ah, dañuy takk ñoom xam nga bu ñu dugalee ci or sax kii la ñuy def li ngeen di wax noonu épargne la nee nañ <laughs> boo amee bi jee nag ba pare ñu dàq la <laughs> ba pare ñaareel bi dàq la <laughs> danaan da nga ñëw pour lekk kaay kaay ñu lekk see kaay ñu ko lekkandoo mm-hmm. waaye nag bu jeexee rek ñu dàq la nga dem. waaw bés bi la jour di tribunal bi na tribunal bu la li nga xam ne mooy radiation bi Sonko kon gagné na ca dëkkam. sa mm-hmm. këram. le juge réinscrit Sonko sur les listes euh, donc euh, Ndiaga Silla avait vu venir waaye kii nga xam ne mooy avocat maître Ciré Clédor Ly démb fii lu mu wax dafa leer nañ nee na. Mm. ñun bagage yi ñu yor nii. Mm. dossiers yi ñu yor bu ñu demee tegal ko si table du juge bi mënu see teg moo day nangu te am nañ ci ndam mais noonu la bi teg ci yoon rek. te fii ngay xamee importance wóolu sa avocat. jeex liste électorale présidentielle 2024 kon le juge annule la radiation de Ousmane Sonko maître Etienne John nee na nous sommes battus. en face nous avions des adversaires déterminés à barrer la route à notre client mais heureusement nous sommes tombés sur un a été prendre une décision qui va dans le sens contraire de l'État prendre le contre-pied de l'agence judiciaire il faut être un juge indépendant pour le faire kon tey indépendant de la justice am na. kon bu ñu fi kenn waxati justice deux poids deux mesures au Sénégal. buñ ko kenn waxati nga sañ koo wax. buñ ko kenn wax point actu daal di dikk nee na Sidiki Kaba mi fu mu nekk nii nag. je suis des postes euh, régaliens il n' est pas membre fondateur de l'APR waaye nag avocat de Karim Meïssa Wade et ancien président moom la bu droit de l'homme ici na ne constante montée en puissance filante stratégique rek lañ ko lañ ko dégg. c'est une étoile filante. des finances. non de juum. affaires étrangères. oui justice. forces armées. intérieur. intérieur tey. ñu dugg ci. c'est une n'est pas dugg ci kii veut de. c'est une ah, étoile filante. ah waaw. Hmm. Marketing Ndiabas <laughs> commentaire. d'accord le l'opposition et la société civile vont debout contre sa nomination waaye nag kii nga xam ne moo di mu Cissé si kaay bi euh, si journal bi wax na neen ak ku ñu mën a teg. ci bopp ministère de l'intérieur warul mën a impacté parce que nag dépassé nañu fu ñuy ñu njaaje ay élection li ñu mën a wax kay moo di loolu maa ko wax ma ni ku ñuy éliminer peut-être mën nañu la éliminer ci parrainage waaye bu ñu demee ba bëri yëpp taxaw. war a sëgg bëri gëm naa ne foofu nag njuuñ njaaj mën faa am. Ah, ndax fii ku fi voté da ngay sécuriser sa vote. Mm-hmm. ministre de l'intérieur amu ne bu dul loolu. kon duñu duñu perte ci amu ci pexe kon duñu perte ci ci ci local yi duñu perte ci législative yi perte ñu mais dañ leen gësam. très bien très donc nag ay élections yi mën nañ ko fi teg lii mu Ndiaye Cissé wax dëgg la euh, délégation bu bu bu parti démocratique sénégalais bi nga xam ne Karim Meïssa Wade moo leen yónni dem nañu euh, sa Bougane Gueye euh, Dany jébbal ko ab njaalam ba noppi it waxtaan ak moom dalal ko daanaka yéenekaay bi daal na ci dikkan ah. bëggoon naa dem nag ci l'évidence sa Thiès parce que nag démb Mouhamadou Boun Abdallah Dionne ma nga fa woon Habib Niang moo ko dalal ak Lamine Aissé Euh, Lamine Aïssa xam nga ko Thiès. Lamine Aïssa. waaw Lamine Aïssa Fall. Lamine Aïssa Fall. Euh, fu mu nekk rek joxante nañu loxo. fës fës kee ne ànd ak ki nga xam ne mooy Boun Abdallah Dionne Lamine Aïssa euh, ak Habib Niang ah, Boun Abdallah Dionne. Ah. waaw tàllal nañu loxo nag Massaly nee nañ ko ñëwal kër gaa gi. très bien. Massaly est-ce que dana ñëw. Massaly du dem. ah Massaly du dem. Massaly du dem. ah pourtant war a mën a dem dama may libération rek 391 si ay ndaw sénégalais yu nga xam ne ñu ngay dund laa la wax jaxal na ma sa dax la nous vivons dans des conditions inhumaines les autorités marocaines nous ont lâchés nous n'avons même pas d'eau ou des toilettes waay waay toog leen ci réew toog leen fii qui vous a envoyé c'est le consul Babou Sène lui-même qui nous amène à boire et manger sonn na Babou jël nañ ko ko fi nous voulons rentrer au Sénégal ñibbisi leen ñibbisi leen ñibbisi <sighs> allez-y tout droit. ma continuer. waaw mi ngi ci kanam. moom Oja fu mu génn très bien boo xefee nag gis naa ko yàgg dama doon dem. rek man dama ko xam eh, xool kii lu mu wax <laughs> eh, en relief lu mu wax. Fada a mis la Sonacos sous perfusion Thierno Alassane Sall. très bien. kon moom Fada mi ñu far nii kon moom moom mi ñu def ministre lan lañ ko def agriculture voilà Fada lu mu doon. en tout cas. moom eh, Thierno Alassane Sall yekk na la mel ni xamee jëw na la de. aywa Modou Diagne Fada yow Thierno Alassane Sall jëw na la ci relief. Fala Fleur moom tey la waloon démb la woon. démb verdict bi ñu ngi koy xaar kon moom it def naa le 26. ok moom it ci euh, euh, waa Pastef yi la. Oumy Ndour a ngi nii yor pétition bi signature yi lépp trent mille ci ay signature dajale na ko ñëw fekk ji directeur bu Bitey bu euh, Sénélec di ëppoo boor bu ne ndax moom it d'accord na ne njëg yi dafa cher ci courant bi. Mm-hmm.